ça va Ndeyawa na nga def euh, vidéo Adji Mbergane bi gis naa ko en fait moi je connais pas cette dame mais je sais que correction rek laa gis ci moom euh, gëw ma ne dina wax kàddu yi ngir yàq deru gëm sa bopp ba mu koy wax li ma jàpp man mooy lapsus la lapsus bi bi mu ko waxee la preuve plateau bi kenn bàyyiwu ci xel parce que waxu liste parallèle u Macky Sall lañ doon wax gëm sa bopp mënul nekk liste parallèle u Macky loolu sénégalais yi dofuñu xam nga tey Ndeye Awa euh, gëm sa bopp est devenu une réalité xoolal local yi ñu génn département Dakar résultat yu tribunal on est troisième force à Dakar département et yàlla xam na ne campagne ñu fi li ñu campagne ci biir réew mi li li ñu def ci biir réew mi defuñu ko sax département Dakar Mermoz ni nga ko gisee man campagne ma fa sax ñetti fan defe naa laa fa campagne euh, région de Dakar li ñu génne ci résultat yi on est également Gëm sa bopp et la troisième force politique au niveau de la région de Dakar devant ay yeneeni partie yoo xam ne def nañ fi quarante ans ñii lu ëpp loolu kon Gëm sa bopp est une réalité ñiy wër di wax naan Bougane day liggéey pour mag yi et cetera et cetera yàgg nañu ko wax mais sénégalais yi dañoo yeewu moo tax résultat yi Gëm sa bopp am à Dakar ñu am ko et effectivement li jëm également ci biir réew mi c'est des résultats satisfaisants ñiy wër di véhiculer message yooyu du ñenn lu mooy les jeunes de Pastef ce sont ces jeunes qui aujourd'hui véhiculent ce message là parce que jàpp nañu ne Bougane noonu Ousmane Sonko la c'est une aberration et c'est dommage que réew mi nit ñi mun a nekk ci affaire fen affaire manipulation affaire yàq der affaire wax yoo xam ne kenn xamul fan lay jóge man Macky dama damaa gën a liggéey ndey ba may liggéey di ko jox ci suuf au nom de quoi man Bougane ku ma xam ci réew mi xam ma ngir fit xam ma ngir dëggu xam ma ngir liggéey li ma liggéey ci réew mi li ma def ci réew mi amul benn yoon boo xam ne am naa fa sens interdit donc gisuma luy tax may underground wala quelque chose comme ça ñoom ñi nekk ci loolu ak di ko wax ci réseaux sociaux yi rek la ñuy toll di ko wax mais li wóor mooy yow xam nga ma ku ci jàkkaarloog man wax ma loolu ma doxaan sa ndey yow xam nga loolu.